une semaine koo xam ci dañoo toj oto dëkk bi tàkk imagine léegi dem jàpp ko tëj ko ci kaso bi nii nii yóbbu nañ ko euh, rëbës wala fenn muy benn décision le même jour jël beneen décision boo xamante ni mooy ni dissoudre na Pastef ñu gisu leen parce que muy ñaari décision yoo xam benn bu ci nekk taal na dëkk bi ko ci benn fan jël risque bakkanam xaru def ko yamul foofu noonu mu yónni ay éléments la même jour yàkkamte pour ñu dem siège parce que dañ ko saccagé maanaam yëfu bandi quoi moom policier def au ñu dem xool luñ fay dem wala ñu ko convoqué leen jox leen ay kayit leen seen ay bien indi leen ko dañ koy dem ci même jour saccagé yàqaate dafay fi bandi yi fi bandi ko ay wuyu lañu ñu def ko ci benn fan provoqué malgré tout ça dëkk bi yëngu na mais yëngu bi yëngu noonu quoi maanaam après ñoom dafa mel dañoo am déception parce que li ñu bëggoon amuñ ko dafa dañoo am déception parce que dañoo xaar dëkk bi instant ñu ay mort compté mais loolu ñu bëggoon ñoom amuñu ko maanaam yàlla ci boppam àndul seen bëgg-bëgg li ko waral mooy Macky Sall ba léegi nii tànnul kan mooy nekk candidat Benno Bokk Yaakaar parce que parewul pour de ba léegi nii tànnul candidat Benno ko Yaakaar bu dëkk bi nekkoon ci kaw comme moom ni mu ko bëggee woon comme mu ko yéene woon bu dëkk bi nekkoon ci kaw Macky Sall day toog pousse élection yi parce que dëkk bi dafa instable noonu la ba kii defoon président Côte d'Ivoire Alassane Ouattara moom la def donc loolu bu doon xar yàlla àndul ceeg moom yàlla àndul ci bëgg-bëggam ak yéeneen bi mu bëggoon parce que ñaari yi mu jël ko ci benn fan taaloon na dëkk bi la preuve da ngeen gis ni ma ma dugal ko nii Anita Diop bi nga xam te ni compte am ci la nguur gi di tànn même même vidéo yi procureur génne keroog ci compte bi la moom moo Anita moo def montage am dugal ko procureur woon ko Sénégal yi jëmul sax liggéey liggéey liggéey procureur bu pare soo soo ko jé jébal ay preuve vidéo la jël présenté ko Sénégalais Anita Diop maam ñi ñëpp ñëpp ñëpp ci compte moo naan diw recherché bu ko waxee rek procureur xool ko daal di kooku lan la war a def ba kii di bind recherche xool page bi gis ñu ko publier na dara rek ñu dem jëli ko ba ci Jamil Sané ñoom Toussaint Manga ñëpp ñu ngi jàpp Anita Anita moo njëkk a dugal photo Sonko yi bi ñu ko jëli jee ci yoon bi photo yi ñu ko fotoon ci biir auto gendarme bi moom la ko police jox moom moo ko publier ci page am te faux compte te parce que kenn xamul kan la mais nguur gi lay liggéeyal Anita boobu moo bind léegi léegi nii nee na Macky Sall comme dëkk bi ni mu instable dëkk bi Macky dafa repousse élection de deux ans à trois ans pour teg dëkk bi ci yoon nangam si nangam maanaam seen yéene moo antuwul moo tax instant yi dañoo jaaxle. asalaamaaleykum euh, waa mbir maa ngi noonu nee naa leen Macky Sall moom déclaré ne ger bi gis nga ni ñu fi wax yii yépp noonu la demee. jàpp nañ ci gaay yu yi euh, koo xam ni baatu ne beneen nit moo doon wax ñu ñëw jàpp ko tëj ko kenn waxut nañ waxante dëgg ñëw fi topp Sonko di ko filmer garde corps bi moo ko jàpp ñun ñëpp sax dañoo yaakaaroon Sonko moo dem nangu téléphone bi garde corps bi nga xamante ni mooy garde Sonko kay bu ñuy jàpp moom lañuy jàpp loolu laa yaakaar ca Touba Serigne Mountakha jox na ndigal Baye Fall yi ñu jàkkaarloo xale yi ni kenn du fi manifester balaa loolu commencé nañu saccagé ay photo Sonko naan fii àngal xawma Serigne Touba la waaye fii nangamtaanu àngaltaanu ki euh, euh, kii jot nañu ndigal bu yàgg Baye Fall yi waaw dégg le mi ngi noonu. xam ngeen ni ñi ay nyi? lañu mom taxaw publiquement def déclaration ni wax leen ma lu leen metti ñu wax ko nit ñi lay bu nekk wutal nañ ko sëriñ bi nañu waxante dëgg rek dégg nga xam ngeen ni lii budul guerre lu mu doon jàpp opposition bi génn Baay Faal yi ngeen ni lii du sot lii lépp xaalis moo nekk ci ginnaaw te xaalis boo yoree xam nga ni am nga lépp oto yu rafet keur yu rafet xaliss senegal boko yere am nga lepp yenen ni suma ko waxe ngeen ma da nga rew waye man borom xel yi laay waxal waaw man borom xel yi waxal quoi ñu ubbi suñuy gët dégg nga taxaw sa askan moy taxaw nga yalla lu yàlla bind doomu aadama la ci gën a bëgg xola barki démb booy bi génn di cibb suuf ci buntu kër song te man sax ñaawlu naa ko wax dëgg yàlla Antoine Diome targeté na ko rey ko dóor ko bal mu dee xale bi ngeen ñu gis barki démb fii ci buntu kër song biñ ne dindi nañu bari cadre bi dégg nga xale yi da leen nëbb seen kanam yi ñii ay criminel lañu ndax dañuy xam nañ ñëpp gis nañu loolu man lu ma mettit lu la dégg nga booy bi ñëw ci bu suuf lu ma metti lu la dégg nga di def yooyu noonu ma metti lu ko def naa ci live booy ba Antoine Diome visé na ko bal rey na ko waaw na ngeen ci bàyyi xel bu baax a baax ñu ngi jéem a indi fen pour lu ñu justifier ni xale yi dañuy rey population bi pour gën a justifier pour gën a justifier euh, ne xale yi euh, euh, ñoo ñoo ñooy rey population bi ñu jël policier def loo ko sal buloo maire bi nee na dëj la jóge maire bi nekkoon ca biis ba nee na dëj la jóge ñëpp lañu wàcce ba noppi ñu doogay taal biis bi am waa ju nangoo fen nee naa leen réew mi ay sénégalais ci boppam ñoo ko yàq dangay taxaw di fen ne man maa ko fekkee maa doon dawal biis ba ndekete kooku pëlisee la ay Antoine Diome bàyyil fen Antoine Diome bàyyil fen walla ruusatu leen kenn ah kilifa diine yi nekk ci réew mi maanaam kilifa non kilifa tarixa yi nekk ci réew mi maîtriser nga ko ak xaalis léegi askan wi ci des lu ñu bëri bari lu mu metti metti dangeen leen nappaaje dèjà nee naa leen lépp lu ngeen ñi def dangeen ci ciy déggoo sëriñ Muntaxa lépp lu ngeen ñi def sal buloo bi ngeen ñi def loolu ngeen ñi def bi ngeen ñi dem yewe yemen dem leen ngeen dem gëstu ji da dem ci sëriñ bi ci sëriñ si ne leen léegi Yémen lu tax nga fay yóbbu soldaar mooy waa Yémen dañuy bëgg a dem attaquer ji euh, Kaaba gi pour taal Kaaba gi xaw ma mais c'est faux ay fen la tey doomu Yémen ñu ngi leen téye di leen rey foofu di ñuy xiif nee naa leen seen góor yëpp dof góor ñi li ëpp ci góor ñi fu mu toll nii ñu ngi ci ay hôpitalu dof Yémen gi Macky sàll yebal ay soldaar ci yéen lañu ñëw sëriñ si Macky sàll loolu la ñëkk def dafa ñëw ci yéen wax leen ko. pour mën a am lu mu justifié li mu def boobu ba léegi mi ngi dugal lu garaaw la la ñuy dugal xool leen histoire Yémen fii may waxe ak yéen Yémen xool leen histoire Yémen ñu ngi leen téye di leen nappaaje seen doom yi di deew a xiif seen góor ñi dof ñu rey population bi rey yu ñaaw lu leen naa lay expliquer nii Macky Sall ak sëriñ si jël nañu seen responsabilité jox ko ndigal ñaanal ko amee gis ngeen que lii fi am nii loolu mooy li nga xamante ni moom lañuy dund lii ñuy dund nii ñun ñoo ko teg suñu bopp nag yàlla nee na askan wi kenn ku ci nekk ni ngeen mel dama leen ñu jox njiit gu mel noonu ñoo leen ñu xoolaat suñu bopp bàyyi seytaan gi ak naafeq gi gis naa benn imbécile ay imbécile yu génn toog ci seen tele ci seen oto te leer na man li tax ñuy tukki ci nguur gii la ñu jóge oto yooyu ñuy dawal leer na ma ni ci seen Macky Sall xaalis bi Macky Sall di jox kii ci ñooñ lu jóge ñu naan ñu naan ñun duñu xeexuñu alaaji Malick kese ñun duñu wax dara maam alaaji Malick yéen la ñuy wax alaaji Malick li muy def def na ko fi ba noppi fekkewuñu jamono ba ay nit di ci topp yéen ñi nga xamante ni yéen a tombeek jamono loolu yàlla dafa ni yéen taalibe yooyu yàlla dafa ni bëgg sa réew ci jaamu yàlla bokk réew mi li fi nekk ku bàyyi xam nga ni bëgguloo sa réew ñoo leen ñuy waxante dëgg bëgguloo sa réew ku toog fale naan yow boo xeexul nga tëj sa gat yow xeexuloo mais tëjal sa gat di ngeen filmer di profito yaakaar ni jekku jekku nañu Sonko li ñu bëgg dinañ ko ko def loolu Macky Sall mënul nekk loolu mënta nekk 2024 mi ngi fi mënta nekk xale yi moo tax ñuy riposter ci mbedd mi dégg nga xale yi bu fekkee ne dañuy rey du doon population bi day doon ñi nga xamante ne ñoo jàkkaarloog ñoom di leen rey boobu ba léegi deux mille vingt et ba léegi dégg léegi nervi yi doo leen gisati wala dootul bëreeti ñëpp dañ leen solal te ni ñu jàkkaarloog yéen léegi na ngeen xam lool ku ngeen rey na ngeen xam ne nervi ngeen rey reyu leen policier dégg nga ngor bi ñuy jàppee ñaari gendarme xaw ma xaw ma ñu da ay tëni lañ leen ñuy solal ngor bi ñu leen jàppee dañ leen bàyyiwaat ñu jàll ñu dem renforcer wu ñëw di rey population bi ca deuxième jour bi rey ci la ñu reyee xale bu jigéen boobu ñu ni Elisu gaal gaal moo ko rey xale yéen a ngi koy fàttaliku jàpp xale yi di rey rek sëriñ bi nee naa leen ci guerre da leen déclaré guerre ndax Macky Sall dafa dem ni ko Sonko jihadiste la salafiste la da lay ñuy nax jébbalu bi mu ñëw fii jébbalu ko da lay nax dégg nga après Sonko fii la taxawaat ni man yaakaaruma kenn ku dul yàlla ñu ne voilà sëriñ Mountakha commencé na guerre bi ak population bi ma nga ko commencé Touba na ngeen bàyyi lool ci xel fii kenn kenn waxu fi ay fen yéen a fi gën a doon ay nafeq surtout yéen ñi nekk di jooy tey ak di xeex yéen a gën a doon ay nafeq looloo tax lu ngeen song du ngeen ko daan bu ngeen ko bëggee daan nag di ngeen génne seen xol yi ay nafeq dégg nga te wax dëgg bi wala ku ko wax ngeen génn ci moom bu ngeen ko mënul seetaan wala ngeen mën ko partager ngeen bàyyi génn ci moom waaye fee ngeen ci toog waaw ñeen yéen ñii suñu kilifa diine yi nii ki naa dugg na fii génn fii xoolal fi jamono bi toll nii sëriñ bi génn ay Baay Faal ñu jàmbaarloog population bi nañu waxante dëgg rek mën nañ koo justifier nag gars yi bu leen neexee lu leen neex mën nañ koo justifier ndax dañu woon mais Mbàkke la ñu dem Mbàkke léegi lan moo ci dañu woon Mbàkke kay lu neex mën nañ ko fa def terewuñ fa sàngara sa terewuñ sa caga ja terewuñ yooyu yëpp nga xamante ni moo gën a garaaw lii ñii taxaw di xeex seen réew la ñuy xeexal mooy bëgg sa réew comme ni ma déggee ay nit di génn di wax jamono yii ñu naan dañ leen ñi doon tere firi alxuraan ñu ngi doog a xam li xew parce que dañoo am nit ñoo xam ni bu ñu firee alxuraan kenn dootu leen xoolati fii ci réew mi ñu ngi fiy tere ay nit firi alxuraan looloo tax kay booy di saaga nit ñi fii ci youtube bi dégg nga tey yéen ñooñu bu ngeen raxee ci population bi ni dañ leen ñuy lor te seen xol yi raxasu leen ko dégg nga dara du lu ngeen song du ngeen ko gañe faw ngeen raxas seen xol yi dégg nga jamais waaw jamais trop ci seconde yi waaw astaghfirullah maanaam man mii di toog nii sax di wax maa ngi naan astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah fii ci seconde yi mën nga koo def génn ci li nga nekkoon xam ni yàlla rek ay yàlla ku la mënulul fii dara mënulul la fële ëllëg dara ñu ngi jàpp doomu aadama yi foofu ca dëkk boobu di leen def yu doy waar yoo xam ni romb nit romb na yëfi nit xam nga ni paaka bu ñawul sax paaka sax mën nañ cee wat mais na ñaw da nga def ay yëfi dof jàpp ci yaay booyi toog sukk nag jël sa temps mel na ne yaa nekk ci dëgg nga ne dangay dagg mees di dagg ay karo yaay jàmbur te ñoom ci seen biir kër ya seen doom ya maam xari Mbàkke ma nga yaakaar ne jàpp nañu sonk ma nga génn ma nga teg gere faasam ca biir dëkk boobu noonu kenn fekk ko fa wax ko dara xam nga ni lii kon du maandu mam borom touba bayiwu fi won li nañu waxante deug jëlele na note askan wi ñuy note nga duggal ci sa loxo nak yow sëriñ bi ku wax ñu saga san rek yonante biñ ko laaje mu ni yaay newaat yaay newaat yaay ba muy ñett yoon de nga newaat yaay ba muy ñett yoon allahu akbar nenañu ni lañuy défendre ko xamne da nga ñew tok di wax deug gi te danañu wax deug gi nag waaw lu leen neex mën ngeen ko xalaat lu leen neex mën ngeen ko indi teg ci taabal bi nee naa leen ku ma ci tooñul boo ma tooñee ma ñaan la yàlla lu leen raa la wax yàkkamtiwu ma leen benn par benn bind leen fële ngeen teg benn par benn ma ñaan la yàlla parce que tooñu ma la nee naa la bu fekkee ne dangay jàpp ni man am na ku may tooñ léegi ñaa bàyyil kooku ñaan ma yàlla bu fekkee ne maa ko tooñ maa la wax loolu xadis ba daal di jib amul benn kiiraay ci diggante bi waaw diggante doomu aadama ak doomu aadama man duma ma baale dara dara duma ko baale waaw dara laa dul baale surtout nag si ki ma gën a ki nga xamante ni du ko bàyyi mooy ki nga xamante day day inventé nag waaw day inventé man yi ñëw leen ngeen waxante dëgg dégg nga réew mi li fi nekk xam ngeen ni yàgg na jaaduwut dégg nga ana ndongo jóob mi ngi ci kaso bi ba tey ndongo jóob moomu noonu fii la nekk. ñuy xeex ñuy xeex ndongo jóob ñuy xeex muy xeex ak Macky Sall yenn saa yi ñu jàpp yóbbu ñu xaw ko jàpp yóbbu ñu toog fii def live suba ngoon bàyyil ndongo jóob tey bàyyil ndongo jóob suba dégg nga dégg nga bàyyil ndongo jóob bàyyil ndongo jóob Macky Sall bàyyi xamuñu lan moo tax mu bàyyi ko ndongo jóob bi mu génnee ki mu njëkk a gërëm mooy sëriñ Mountakha yi